ah mais tey ñi nga ñi nga xam ne euh, war nañu war na waroon nañu màggal si. te ñëwuñu. Hmm. xam nga man jot naa ay info yu war a ne am na ñoo xam ne bëggu nañoo ñëw. waaw ah. te mënuñoo ñëw parce que dañoo signalé seen tur ci aéroport yi. waaw ah. ah, léegi loolu kañ la daan am. tey na waaw man loolu du ma ko man loolu bu amoon man personnellement. Hmm. man lu wér la. Hmm. man ko yor kaaraange ak biir réew mi laa laa koy tuumaal est-ce que du li dossier bi tëgg jamono bu nekk di wax naan terrorisme terrorisme ndax gis nañu ah, yaa ngi yaa ngi wax léegi tiwoo yi euh, tiwoo yi daggoon ki ci a génn te bokk ci benn boog yaakaar googu li mu wax mooy ay acte terroriste la waaw ah, xam nga comme li Antoine doon jéem a def naan ci bis ba hmm. am waajuroo ay cocktail molotov mën na ko ay ko luy flamme hmm. xam nga dèjà Antoine du laaj flamme xam na luy flamme flamme sawara lay tekki ah. parce que ñoom loolu ñi ngi bëgg duufal ba amul waa terrorisme mooy lan. waaw buum gi ñuy yeewee képp koo xam ni a andoo ci lañ bëgg a def. waaw buum googu nag ko ko comme comme wut nañ buum gu baax. waaw ñu wut jur gi ci yeew. jur gi mooy maanaam lu waa terroriste faaw ñu wut ay terroriste. waaye amul ay terroriste faaw ñu wut ay terroriste nit wutum terroriste lu lu xew rek ñu bëgg ko. lu ji lu xew rek ñu bëgg ko ak ak terroriste ngir bëgg nañoo prolongé te ay nit yoo xam ne xam nga waaye ko may ñu koy gouvernement kenn du ko may terrorisme du leen ko may man moom dooru ay gor ñu ñoom duñ doone gor ñoo ñu nekk ay jaam wax dëgg yàlla doon ñuy wéy di gouverner am réew ci loi yoo xam ko bokkoon tënk te muy dëgg mhm. duñ leen ko loolu loolu ko nangu duñ ko nangu li may wax léegi damay ci pare man li xew ci Touba man day day mbir xam ne dama xaw a jaaxal bu fekkee ñi ñu jàpp ñëpp ne terrorisme lañ leen jàppee noonu lañ leen jàppee moom sëñ mbir mu réew maa ngi bëgg a danser nag. ñoo xam ne yow. ay nit yoo xam ne ndox mi ngi dugg seen kër ñu daggati waaye ngir bañ ndox mi si nga jël leen en tant doomu Touba dëkk Touba màggee fi yaroo fi jël sa ay moroomu ñoo xam ne xam nga bu baax na ay innocent lañ nga bëgg leen traité de terrorisme. Antoine am na lu mu doole nee jàpp na xam nga du loolu la wax. Hmm. moom xamul gendarmerie dara parce que gendarmerie. war la boo xam ne maa ngi ñëw maa Ah. waaw dana gendarmerie jàpp na leen. Hmm. moom xamul gendarmerie parce que gendarmerie corps boo xam ne la bokkul ci bokkul ci wàllu lu ñuy wax l' intérieur. waaw ah. force armée la bokk moo tax fi ne nii li muy wax maîtrise wu ko. léegi nag ñoo en tant que comme dañuy politique dañuy politique dañuy politique ñu bëgg politique sa mbir mi nañu bàyyi xel lenn. Cheikh Tidiane Gadio nee na woon. Hmm. yëg na ne am na ay terroriste yu programme ngir mosole Alhaji Malick Seck Serigne Touba. waaw ah. waxoon na ko. waaw waaw. bu leen def loolu suñu bopp ngir bëgg ñaa indi la yata attaque terroriste mhm. waaw bu leen préparé suñuy xel ngir loolu de gis nga fii Sénégal terroriste ñu la ñun sëñ dañoo xam ne terrorisme xamuñu ko léegi nag yow sëñ Fallou mhm. en tant que tel tey bu fekkoon ne dafa wér péng sax péng ne ah? mhm, dañoo dagg ay teewo teewo yi ndox waaw ah? ngir saboté maanaam branchement ONAS bi loolu est-ce que acte terroriste la effectivement nit bu toogee ne maanaam maa ko dagg ndax damay saboté dara maa bëggul Macky am ndam ci Touba. Hmm. mais loolu mooy acte terroriste lañ. ko. ak li ñu ci terroriste. day du acte terroriste li a wax ci terroriste. du acte terrorisme terrorisme nag dama wax ne génn buum la goo xam ne tubaab yee ko raw ba mu baax ñu teg yaa ngi dégg. waaw maanaam képp kuñ bëgg a kuñ ci bëgg ñu ne yow mu terroriste ko amoon nañ buumu terroriste kaa ñëw la ci buum ko tubaab yi doyee suñu dëkk bi nag dëkk boo xam ne kenn du koy politique ñun ñu seetaan la ci de laaj ma xiyamati Hmm. ak ah, ñu ngi jëm ay élection présidentielle waaw ah, ku hmm. ni man de dinaa mobiliser wu mobiliser mbooloo ngir ñu saytu bureau de vote bi am Touba dañuy dañuy élection 2024 dañuy élection ah, pourtant na ñuy wax ne élection mën naa bañ a de ñaa sélection ay mbooloo ngir ñu surveiller suñuy bureau de vote saye boo fa ab patriote nekk nga jóg sélection ña fa nekk hmm. ngeen sele ba ba ci dëkk yëpp dam leen Fuuta Casamance fépp fii Touba demoon loolu dinaa ko dinaa ci wax ñu ma ci war a wax ma moom moo nekk loolu ñuy wax euh, nakalaate coordonnateur coordonnateur bi. Hmm. ba dinaa ci wax ak moom. dinaa ci am waaru ma ci béy bu yaatu. bu ci àllande yegg nañ ci juróom-benn weer dong la. juróom-benn hmm. weer dara. te waxtu wii laay commencé organiser loolu. ñu jëm ci élection présidentielle. élection yoo xam ne yow ñu ngi pousse parrainage yi poussaat nañ ko. Eh, loolu problème la pousse parrainage xam nga lu ko waral. Macky Sall xam nga lu ma wax pousse parrainage ah. nit ñi lay bañ ñu am temps pour am parrainage. ba ci des tam gis nga ah, kii yam boobu noonu partem boobu. Ah. ñoom lay tegal ndëgg sarax bi gis nga gars yi bëggoon ay candidat yéen waa APR. choisir candidat ba léegi mën a goo choisir aussi. waaw xam nga fi ne ñoom ñi ñoom neuf personnes yi bëgg bëgg ah. wuti leen ay parrainage. Hmm. ci waxtu wi xam nga lu bëgg. waaw ah. téye leen téye ba élection yi yegg si du ngeen am parrainage mu seet kam tànn ci seen biir jox koy parrainage mu dem. suñ fi mu doon da ngaa jàpp ne élection dina am 2024. loolu suñ bu bu ci waat desee woo ma ma waat ko toog leen foofu di ko waa ji day day am day am élection day am kay. Hmm. bu ci waat desee ma waat day am kooku koy laa na sukk fii xaa si sax ku ma ci dara day am. ñii li xam nga damay bañ. ñu la ci bopp bi nit ñi influence bu élection daam élection day xam nga tubaab yi il faut ngeen xam ne. baaxuñ guddi baaxuñ bëccëg baaxuñ sant yàlla. waaye dañoo muy def président buy dem ci seen sommet union africain yi ak biir sommet international et cetera. Hmm. te yow kenn voté wu la légitimement. Hmm. lu may da ngaa élection loolu loolu mënut a ne. Hmm. fii du fi am. naa fondation Servir le Sénégal te suñu ko wala waaw effectivement c'est <laughs> ça mm. loolu rek war na laa xamante ne soo bare nañ ci yi. Eh, bu ñu ah tey na na waaj ñu suñu bu ma ñëwee ci li nga xam ne moom mooy euh, balaa ma see dugg sax mais damay ñëw ci ndox mi nga xam ne mi ngi am ci Touba jamono yi inondation yu baree bari yoo xam ne ñi ngi waaj màggal gi ay juróomi fan ak euh, li ci des ñi ngi naan mu dul semaine mais ndox mi jamono bu nekk saa su tawee rek day mel ni daal. Euh, Touba moom am fii foo jaar jafe na. Ah, ci màggal gi ban waaw ndax man barki léegi nii yaakaar naa bi ma jëkkee woo. waaw ah. léegi ci suba la ñu doon enregistré émission bi. Hmm. yàlla mi dogal dogal ma xëy demoon dara am ñu ma doon lijjanti ci. Ah. waaw bi may ñëw. Hmm. jaareel naa oto bi foo xam ne oto bi mënut a dem. Hmm. dañoo mujj wàcc di yëkkati oto bi ngir mu wàcc fi mu dugg. ngir teggim dox donc. parce que diggante fii ma dem ak dalal gi bu may dikkaat daanaka am naa lu mën ñaar waxtu loolu kenn mësu koo gis. nee na waaw loolu système hmm. de assainissement bi. waaw bu ñu toogee ñu dikk fi naan waaw Macky Sall def na fa nangam. Hmm. hôpital Cheikhul Khadim diw nangam ak ki nangam. Hmm. di yoo xam ne sëñ Macky Sall lu mu ñu defal rek. biñ ñu la corona def te fi ne mu ngi door a defal ñaar te mu ngi nee nar a tàggoog ñun def. Macky defaluñu luñ koy santee ko gërëmee. suñu junni lañ ko joxoon. mu réaliser ñu ay téeméer. la ca des lañ koy toppee loolay wax ci. directeur ONAS bi Mamour nee na def na fi cinquante quatre milliards. de cinquante deux milliards yoo xam ne wax nañ ne def nañ ko fi. ci inondation yi. Mamour Diallo te xam nga tax gëwuma ko. ñoom suñu suñu stade ba ca Dakar. mbër yi di bëree ñoom lañ ci waxoon ñoom ñu ne. waaw ah, nañ trente deux milliards. trente deux milliards. Hmm. waa si euh, président chinois bi lu mu wax moom. ñun ñoom dañu wax dañ dañ ko doon la quoi. waaw doon la ñu tekki ci wolof du mooy may. Ah, waaw may moom noo ciy defee trente deux. xam nga gis nga raay bi raay bi sëñ Mourou Moussa su nga xeet mhm. sàcc yooyu yàgg na de waaw xam nga ne raay bi sëñ Mor Moustapha defar nii mhm. France génne woon na budget bi xam nga ci loolu waaw gouverneur national bu bu Sénégal ah. fexe na ba ba décaissé budget bi lekk xaalis lekk xaalis ba di doy wallaahi loolu la mu demal moo ci la ko defee ko financé waaw ci lañ ci seen enquête ba ba pelante ko ba ba emprisonné ko ah. hmm. ba dëj ko xam nga dafa baax ah. loolu aussi noonu lay demee mais cinquante deux milliards foo ko def. est-ce tamit. Euh, maanaam la maanaam la xam nga xam nga fu ñu def. ay ah. seen i teew teew xam nga ko def. waaw ah. boo jaaree gis nga tëri bu mag bële ca côté gare Dakar jaar na ah, ay teew yu mag lañ fa def. Hmm. teew yi lañ gas suul ko fa ndox ma dafa jaar dem. waaw loola lu wuti la ci dëkk dëkk bu doon téeméeri inondation ñaar rek li wuñ ko ci man la may xam naa hmm. bañ koy defar maa ngi teg bët. loola man pour man ëggul sax ci deux milliards ci ko hmm. ma damay gis bi ñu daggee tiwo yooyu bari na ci ñi média yeeg ñu ne euh, ku nekk di wax naan euh. sabotage sabotage mais est-ce que fu ñu def cinquante deux milliards tamit benn yoo buñ dagg. Euh, gis nga sa média yi amuñ problème xam nga lu tax. Hmm. moo yow sëñ bi lu mat quarante personnes ñu bàyyi ko fi li ñuy wax marchandisme lakk. ah di ci di ci organiser ay plateau marchandisme lakk baaxul di. benn kaas bu toj képp ku ne war ku ne war na ko a waaw waaye kaas moom ma nit bu xasee faatu marchandise woon kon deetul. wax naa ko di ko leeral di ko leeralaat sëñ Fallou. Hmm. tey jii sama kër gii maar day tari. bu ne woon jëppee tàkk nit ñi duñ dikkee duñ laaj sëñ bi ana sa laal ba. waaw ah. duñ ma laaj loolu de duñ ma laaj ana sa sees ba. waa ci. dégg nga yow mii sa caméra boo ko bàyyi woon duñ ma wax loolu ana caméra bu sëñ Fallou ba. Ah, waaw naan baa nit ñëw fi nga may laaj. baa nit ñëw déedéet nga ne nga ne alhamdulilah. Ah, waaw a xool li nga xam da ngaa hmm. ñoom bu ñu di wax naan waaw ay sabotage te sëñ mi nga xam ne moom kàddu dëkk bi moom parce que moom ku ko gàddu moo la ci gën a yay. ndax ku ko gàddu moo la ko ku ko la Mm-hmm. foo gàddu it moo war a jox daraja ba tax nga gàddu moom waxal na boppam nee naa ñoom dañoo xamul dong ah. dañ la defaral ñuy tax ñu dem dagg teewee ah. te naa nekk mm-hmm. loolu noonu xam nga lu ko waral defar bu baaxut la ba defar ba defar loo xam ne yow solution mbir moo ko moo ko tax a jóg mm-hmm. bu dikkee indi ay problème kooku vraiment nit ñi il faut ñu solution seen ndax buñ gisee luñ daawul gis defar bu baaxut rek la ah balaa maa jeexal damay ñëw ci li nga xam ne mooy BRICS bi nga xam ne juróomi réew a ko bokkoon muy Inde ak euh, Brésil ak euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ay Afrique du Sud ak Chine ak Russie amoon ay candidat yoo xam ne bëggoon nañ ci dugg Sénégal bokk ci <laughs> waaye yàlla dogal ñu rejeté ñi nga xam ne ñoo waa Sénégal ndax seen mbir moom xamoon nañ daañ ah. parce que loolu pays yi voie ci yoonu émergence émergence waaw benn bii tax nga mën ci aleeru lii da ciy bokk Sénégal pays émergent la. waaw. Hmm, Sénégal du pays émergent. yow na ko. ah li ñuy ah, fi ah. tabax fi stade tabax fi ay. waaw xam nga tabax voilà fi ne boo demee Brésil. waaw ah. ñoom am nañ capacité wu. ba organiser coupe du monde xam nga ci loolu. effectivement organiser nañ ko organiser waat ko. voilà Afrique du Sud. am nañ capacité wu organiser lan coupe ko sax. Iran mi ngi nekk puissant ci wàllum arme. Mm-hmm. ak économie. waaw. Russie moom am na capacité organiser coupe du monde. organiser na ko Sénégal am na am na capacité organiser coupe d'Afrique. waaw léegi daa mel ni mënaguñ ko. man voilà. <laughs> stade bu ñu homologué benn lañ ci dañ ko amee yàggul. Mm-hmm. comprendre nga. waaw. te ba tey jii hôpital nit ñaa ngi ciy dañ koy ñàkk ordonnance amatul seen réew yooyu. Mm-hmm. président Lula bi nga xam ne moo jiite moo jiite moo jiite euh, Brésil. lii ñu ko doon jéem a toppandoo seen bourse bourse familiale moo ko jëkk a def Brésil hmm. ba densi na te ñoom seen lii anam dañ koy yóbbu ci côté militantisme hmm. ndaw sa jàkkaarloog ñoom jàkkaarloog Macky Sall di wax ne ñoom ñi koy jox daanaka mooy seen militant ah. tey jii mi mi ngi ci hmm. ci lu ma yëgut ah, waaw Sahara Wagué waaw bu fekkee génnul génnul ci génnul ci lu ma yëgut waaw ah. nga xam ne BRICS boobu bi ñu ciy dugg naa dañuy def demande ñoom ñëpp mënoon nañoo def kitaabu ci alxuraan na ñoom ñoom duñ leen jël Ah. mi ngi mel ni rek ci misaal benn uh, barab boo xam ne ci misaal dañ faa dajale ay xaafisul quraan ñoo hmm. xam ne ñëpp mokkoon nañ ñu ne tey dañuy mokk dañuy dañuy tare waaw ah. hmm? hmm. koo ne moom dadul sax baabay mokkal mu ñëw bind ne moom nañ ko boole ci kaa ngi war a tare kooku ustaas yi war a dégluwaat bu ñu amee fulla nañ ko bàyyi mu yéegi si la taw waaw loolu la moom ko ferut ji la ba pare dikk na day tari mu ngi mel ay professeur d'université yu dajaloo boo xam ne am instituteur la yor ay xale di jàngale. waaw nga ñu ñu ñu suba la ñu joxe ay cours ci matière sàngam mu ñëw na da ciy joxe. moom fekk moom bu ñu ko doon jox cours bi sax amul niveau mën mën koo dégg. Hmm. gis nga ñoom bu ñu ba boole ko sax niveau bi déggul maanaam doxalinu BRICS sax Sénégal amu ko. Hmm. Sénégal amul kontul nekkul. Ah. Sénégal amul France am. Sénégal amul est-ce ce que tamit mënuñu ko jàppee ci beneen côté muy euh, euh, BRICS biñ ko fi biñ koy taxawal contre C7 moo tax. te Sénégal moom ku ku lu waaye mën a wax ku jege occidentaux yi la te ñu bokk ci BRICS euh, ñi ko fondé bokk daanaka ay euh, ay euh, rival lañ ak ñële am tubaab bi dañoo def C7. waaw bam na xam ne C7. waaw dana hmm. kii maanaam Arabie Saoudite bokku ca. Ah. te C20. Hmm. Arabie Saoudite hmm. ma nga ca. C20 Russie ma nga xam nga. waaw te BRICS bi Arabie Saoudite def na demande ba adhéré na. waaw. Hmm? Iran bokk na c waaw te def na adhéré ci ci BRICS. waaw accepté nañ ko. Hmm. Égypte aussi bokkul ci C20. Égypte waaw bokkul ci hmm. parce que Égypte am na population mat na ko xam-xam mat na ko même armement. fi Afrique moo fépp doole. Mm-hmm. ar arme ñoom seen arme moo ëpp doole fii Afrique Afrique ñoo fa ëpp doole armement ñoo fa gën a taxaw. Mm-hmm. ñoo a taxaw Sénégal bu demee di demandé. Éthiopie ah? Éthiopie boo boole nañ ah, mm-hmm. damaa naam ñoom buñ ko xoolee sax ba ñoom jot. waaw parce que réew la moo xam ne waxuma la dara waaye réew mu doxul mètre loolu hmm. doxul maître dañu réew. kon de li ñuy wax naan émergent émergent yi yëpp. moom waxatuñ ko yaa ngi dégg ñu koy wax. waxatuñ ko. xanaa <laughs> jàpp ni ci examen lañ demoon bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko. jàpp ni ci examen lañ demoon redoublé. waaw dañoo redoublé ñoom kay waxumal redoublé xam nga lu ñu doon dañuy politique rek. di nax nit ñaa eh. émergent émergent anam déggatoo ko. déggatoo ko. jërëjëf sëñ Mbour dañ la bàyyi nga tàggoo rek soo defee ñu jeex. waaw di ziar nit ñi seetaan ñëpp di wax ne waxtaan yi moom. Hmm. bu soobee yàlla mën naa am balaa mag sax danañ ko defaat. ci yeneen i site. Hmm. ak suñ site biir IYAT nga xam ne wax naa leen ko. Hmm. abonné leen ñu. waaw boo defee nu egg ci fa nu bëgg a yegg daal. waaw ah, ah ñëpp a ngi ñuy jàppale jàppale gi mooy jot bi ngeen di jël dañu jox ñoo ngi koy jégalu wóor na Seexul Xadiim. waaw seen jot ngeen ñuy jox dañoo ngi koy jégalu wuñ ko waaye. bu sëñ Saliou daan waxanu barkeeloo ko. ok ñoo ngi siyaar nag mboolem ñi nga xam ne ngi seetaan ci biir réew mi ak bitim réew moo di nekk ci bitim réew ñu ngi leen di barkeelul waale fii ci màggal gi yéen itam hmm. mboolem ñi nga xam ne dañoo ne bitim réew ñu leen barkeelul fii ci màggal xam na itam dañ laa tëkku te état ne boo dikkee mu jàppale toogal sax hmm. màggal day gën a barkeel rek bu hmm. ñëw ah. daa ñëw di tëdd ci prison yi amul leen benn njëriñ day gën a da ngeen di liggéey foofu yi ñun gis nañu ko te satisfaire nañu itam nag waaw ndax yéen a ngi xëy ci terrain yi suba ngoon gu dégg bëccëg yéen ci mboolem institution internationale te seen ab dara nga yàqu te loolu ñun xeebuñu ko hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi leen di san di leen gërëm di joxe dig daje beneen yoon ci beneen waxtaan incha allah